ndax te sant yàlla bu baax. nga jógee sa combat ba léegi xam foo nekk. non maa ngi fi di lekk si lu ma war a nekk par des fois ma dugg si àll bi ñëwaat comme gars yi. xaw a cof ñëwaat waaw waaw yaa ma gën a xam. non dino su ma juumul Tidiane Faye def lu tolloog douze combats benn défaite. waaw noonu la demee noonu la yàlla dogal. yaa ngi daanu 2013. 2013 waaw waaw waaw waaw. boobaag léegi déggoo bu dama bëgg gars yi daan ma comme amuñu ku ma daan. booy Dakar na ñëw ñu bëree. booy këppul suñu reer de Ronaldinho daanuwul de Boy Dakar bu ñëwee dama kay dóor mu daanu bu ñëwee maa ko mën maa ko doole bu ñëwee dama koy toroxal xam nga ñëw na indi yankaaw ma duma yankaaw daan ka moom bu ñëwaatee dama koy dóor mu wàcc Boy Dakar mi daan barki Demba Ndiaye Ronaldinho dama koy duma kooku matul nit kooku di bébé dama leen ëpp doole dàq leen bëre booy Dakar bu ñëwee ma dama koy ray sax bu ñëwee ma duma ko déggoo ma la ak keneen ak keneen gars yi dañ ñëw bëre ak man ah. Ah? ah jot na de nañ ñëw ñu xool ma daañ wala duñ ma daañ dama sama yaram mooy xasan di ñaanal sama frère bii nii Malick Niang numéro 2 may ko ndam parce que sonn si combat bi trop yàlla na ko yàlla may ndam di bëggee waat gaa yëpp di siyaar waat ñëpp waa yaa ma gën a. bëgg waat jàmm ci yow Adja mais nu may def ba jot si